a particulier particulier, ak les professionnels si vous voulez le professionnalisme le confort la qualité et la sécurité venez voir notre agence immobilière prévision immo Wow, cette entreprise est gérée par un jeune travailleur engagé et déterminé au nom de Abib l'homme fort l'agence Prévision immo est focalisée sur deux domaines à savoir la transaction immobilière et la promotion immobilière pour la transaction immobilière il y a la location la vente et l'achat concernant la promotion immobilière l'entreprise sera le maître d'ouvrage c'est-à-dire le réalisateur du projet loolu neex na kon ku bëgg a jokkoo ak ñun defal 33 927 43 07 wala nga def 77 890 30 avec l'entreprise prévision immo votre bien au juste prix. mbiru maître Moussa Diop jëm ci teewaayu jamaa fi ci Sénégal di wéy ak yu bees saay suñu xëyee kii di Aly Ngouille Ndiaye nekkoon fi ministre te ñu taxal ko ci yëf yi daal dinañ koy convoqué tey ci àllarba bi fële sa sûreté urbaine moom nag si li ñu koy auditionné mi ngi jëm si enquête bi nga xam ne dafa soxal tuuma yi maître Moussa Diop yëkkati jëm si trafic de diamant fii si suñum réew Aly Ngouille Ndiaye porté woon plainte ki fi nekkoon directeur général Dakar Dem Dikk gannaaw ba maître Moussa Diop yëkkatee ay kàddu tuuma teg ko si ndoddu ancien ministre bi bokk na ci ñi ñu convoqué itam di docteur ci Cissé nekkoon fi directeur de mine et de la géologie ndax jot naa porté plainte kii di maître Moussa Diop gannaaw ba mu ko joxoñee baaraamu tuuma si fàttali ñaar ci ay bés yoo xam ne kii di maître Moussa Diop mi ngi en garde à vue fële sa sûreté urbaine si ndogalu procureur de la république